بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يمن بصوابخ الآلاء ويتفضل بجسيل الفضل والعطاء على عباده السعداء الذين ألهمهم ذكره ووفقهم إلى شكره وعفتهم من عصيانه ومخالفة أمره والصلاة والسلام على مسك الختام وبدر التمام ومسباء الظلام سيدنا محمد وآله وورثته نجوم الهداية وكواكب العناية وكل من دعا إلى هديهم أو تمسك بأوامرهم أو شعى إلى رحابهم إلى يوم الدين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمني مبكي جلد يبدو دلان سيارة دلان بلو dig bi leen diggan nii dina tàmbali bu six heures jotee waaye lépp rek yiw la lu ñëw tey ci seen ñetteelu xalqa bi nga xam ne jitaay bi ñu tuddee al fikru as saxi ñu di ko amal ci fukki fan ak juróom yu ne àllarba bu six jotee di ci dalal boroomi xam-xam it di gërëm bu baax a baax suñu rakk oustaz Mouhamed Kama Thiaw tey jii nag ñu war a dalal nag oustaz al imam sëñ Cheikh Gueye nekk fële ci Gandigal ci wetu Mbuur di fa jàngal nekk fa imaam di yëngu ci islam ay yëngu yu woro yu wut te am solo di ko xam ne moom it taalibe la ci manhaj bi nga xam ni moom lañuy waxtaane mu am ci xam-xam bu yaatu waaye mu may ni ci jotam tey jii ñu dugal ko ci groupe bi ñu war koo jox ay laaj yoo xam ne moom la war a tontu kon imam cheikh ñu ngi lay bàyyi ngu nuyoo tafadal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين جناو سنت يلا أجل تجين تبي صلى الله عليه وسلم سيرين أبيب نيوغلي نيو تي نيو مبولم خمني نيو بوكو الحق صابت والباطل زائق te eh, di leen xamal ne eh, Serigne Habib moo ma sàkk woon ma ñëw tey waxtaan si ci wàllu tasawuf ma nangul ko ko kon maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp tey gërëm ñëpp ñu dugg ci liggéey bi. jërëjëf Serigne Cheikh Imaam kon ginnaaw nuyoo bi ci matale gum matale te gàttal ko mbokk yi xam ngeen ni euh, émission bii ñu weesu ñoo ngi doon waxtaanee xamle kan mooy Abu Nasr. as-siraj at-tusi moom mi nga xam ni moo aluma aluma fi tasawuf nak xam la len len ci li ci tere boba muy lu am solo moy lan mo sabab mu talifan ko ak ban dayo la am ci l'islam ci tasawuf islamiya mom tere bobu sas ko mo indi ci ay leral yu am solo leral ci tamit nu Imam, jëfandikoo woon xalis bii di al ulama warasul anbiya mu indi ci ay e, leeral yu am solo yoo xam ni ba léegi nit ñi ñu ngi ciy jariñu indi ci dëgg dëgg dëgg tamit e, ay teggin yi nga xam ni moom la mën xaj bi jàngale mu doon ay teggin yoo xam ni jur bi mënu koo ñàkk leeral ca lu jëm ci sataxaat yi nga xam ni e, dañ koo gis ci ñi nga xam ni ñu ngi dund tasawuf kon laaj yooyu keroog leeral na ko ci gàttal tey jii nag ñu bëgg dugg nag ci yeneen laaj yoo xam ni dañ koy laaj imaam Cheikh Gandigal incha allah mu ñëw ci laaj bu njëkk bi sëñ Cheikh. Euh, noo ngi jégalu nag xaj na léeg-léeg audio yi euh, sore goo xam ni wala boog ci wàllu internet bi léeg-léeg kii laaj ojo euh, mën naa jëkk a dugg te du jëkk génn ci biir internet bi mooy war a léeg-léeg sax. audio yi du ñu tegtaloo kon suñ seex a ginnaaw nuyoo bi dañ lay jëkk laaj rek euh, tasawuf day ndax daa doon lu berlu ci lislaam bañ mën ko ci génne bu fekkee bëriwul ci lislaam daa bokk ci lislaam kon lan mooy cëslaayam moom moom moom mi moom tasawuf suñ seex kon loolu mooy laaj bu njëkk bi incha allah euh, jërëjëf sëriñ Habib Euh, tasawuf du lo xamne dafa beru ci l'islam ni ma la ko mën a rek mi ngi melni tafsirul quran jamono ji yonent bi nekké ci jamono yalla di al qur'an boba ay tafsirul quran amul woon ginaaw ba nga xamé ne dem na ba adina laaj ko nak boba lañ doore sara qur'an di sukkandiku ci addis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kazalika naka noonu bi yonent bi di nekk tomb ay alxuraan ak di commence amul woon eh, gannaaw bi lañ ko def kazalika bi fi yonent bi di nekk dajale alxuraan tegale saari mu nekk benn amul woon gannaawam lañ ko def am na yeneen xam-xam yu mel ni nax wuuki aruud ak yeneen yoo xam ne gannaaw yonent bi la fi ñëw loolu nag tasawu daf koo mel yàlla def ne maa faratna bi kitaabi min shay'in bi yonent bi nekk jamono boobu zuhdu fi dunya moo amoon bi muy génn àddina it su adaaw yi ñoo fi nekk ñu mel ni ñoom abi zarin alxifaar yi ak ñeneen waaye biñ demee nag ba xulafaa urashidin jeex nga xam ne léegi dem nañ ci mulkan adudan ña bëgg àddina toppi buur ya ña bëgg yàlla dem toppi yàlla féeteeg yàlla kese booba nag la yoonu tasawuf juddu amma nak batu tasawuf ci bopam ñu génne ko ci biir alquran ne mu ngi ni loolu moom amul waaye dalil yi tegtale ne tasawuf xam-xam la bu jéeg bu génnee ci biir biir alquran moom am na euh, bu audio bi ma mu gudd waaye bu boobu egsee ma tegal la ci dalil yi te xadisu jibril mooy dalil yi tasawuf ci biir linga euh, li nga xam ne moom laa wax léegi ne hadisu jibril modi dalili tasawuf ci l'islam xam nga hadith ba ñepp mokal nañ ko sax moy bayna na maana nu julusun inda rasulillah ji nga xamne mom la amrul net li te mu nek ci sayyid bukhari xam nga fofu yonent bi dafa xaj diine daf ko ñetti xaj daf ko fo xaj daf ko liman fab liman xaj ko daf ko juroom benn ponk indi benen xaj tuddi ko l'islam fab l'islam xaj ko juroomi ponk daldi indi benn ponk dong tudde ko lexsaan te xaaju ko xam nga kon juróomi ponki lislaam ak juróomi juróom benn ponki liimaan soo ko boolee fukk ak benn lay doon mu génne ihsaan teg ko fee moom dong te nekkul nekkul maanaam euh, si euh, tasaw ko léegi nag fa nga xamee ne fa la ko jibril di waxee ne eh, lan moo di lixsaan mu ne ko al ihsaanu an taabudallaha ka annaka taraahu in lam takun taraahu fa u yaraka foofa mualah la xamal ne kon yonent bi moo xaaj diine def ko ñetti xaaj bii xaaj tudd liimaan bii xaaj tudd islaam bii xaaj tudd ihsan ihsaan jooja nag moom la mag ñi soppar ci di ko wax tasawuf waaye du leneen li taxit tasawuf mënta ñàkk ci diine te moo di ba jibril waxee ak yonent bi ba woon ko gannaaw di dem dane kooku day daf ko ne atadri ilu umar ndax ki doon laaj yow omar xam nga ko mu ne ko yàlla ko yénente ma ko xam mu ne ko kooku jibril la dafa ñëwoon di leen jàngal ci seen diine kon suñu diine moo di iman ak islam ak ihsan te ihsan moo di tasawuf ba tey am na keneen koo xam ne ci yànke yu mag yàlla ya bokk moom tamit wax na ay xawaidam ci wàllu tasawuf te moo di abu yasid albastami te kooku ci ñi ñu gën a waxal ay njombe la bokk waaye abu yasid albastami de li mu wax dafa wax ne law nazartum ila rajulin utiya min alkaramati xatta yartaxiya fi l awaa'i fala taxtaru bihi xatta tanzuru kayfa tajiduna u inda al amri wa nahyi wa ifsir ududi wa adaa shariati su ngeen gisee nit yàlla jox ko ay karaama ba muy naaw ci kaw asamaan bu mu leen wor na ngeen ko dem nattale ji ca la yàlla santaane ndax ma nga ca ak lam tere ndax bàyyi na ko ndax xuduudi yàlla ya mooy dayalam ya ma ngi koy wattu ndax sharia ma ngi cay jaan yii bu ngeen ko fekkul ci moom baleen te xam ne kooka ab tappalekat la waaye bukkul ci sunu yoon bukkul ci tasawuf la ca topp tam imaamul Junaydi mi nga xam ne moom moom lañuy topp moom tamit am na lu mu wax ci tasawuf ginnaaw ba nga xamee ne abu yasid al wax na ba noppi imaamul di moom dafa wax ne aturuqu kulluha masdudatun ala al xalqi illa man ixtafa asara rasulillahi wattabaa sunnatahu wa lasima tariqatahu dafa wax ne mboolem yoon yi jëm ci yàlla ñi di ko jaamoo yàlla yépp dañ leen a makk tëj leen wenn yoon dong la yàlla ubbi te kuy ku bëgg egg ci yàlla mooy kuy egg egg ci yàlla jooju nag na leer sufiyanke yi egg ci yàlla jubluwuñ ci dem ba gis jëmm ju toog ñu ne ko yàlla yaa ngi maa ngi egg ci yàlla liñ ci jublu mooy egg ci taw iit wéetal yàlla gu te ak bokkaale loolu la ñuy wax egg ci yàlla leneen lu la waay wax lu dul loolu moo ko wax waaye sufiyanke yi waxuñu loola léegi dafa wax ne yoon yi eggale nit ci ci mu wéetal yàlla képp te du ko bokkaale yépp lañ tëj ba mu des yoonu yonent bi képp képp koo xam ne kii nag jaar nga ci tànk yenent bi topp sunnaam te topp yoon wa mu wa mu digle man ngaa egg ci yàlla mooy man ngaa egg ci wéetal yàlla kon kooku na ne ku jaar feneen feneen nga jëm ba léegi wax na ne man lam yaxfasil qur'ana walam yaktubil xadisa la yuqtada bii fi azal amri li anna ilmuna hada muqayyadun bi usuli alkitabi wa sunnati mu wax ne képp ku jàngul alquran tari jàngul xadis ba nekk mu xadis bu kenn roy ci moom ci mbirum tasawuf ndax koo xam ne doo sukkandikoo ci alxuraan ak xadis bu ñu royee ci ci tasawuf ci yow da nga leen di jaarale ci leneen lu dul sunna te yonent bi sunna la bëgg ñu jaar ci mu ne xam-xamab tasawuf bépp nag ñoo ngi ko tënk ci alxuraan ak sunna ku la indi leneen lu dul alxuraan ak sunna loola na nga ko sànni ca àll ba loolu moo di waxi imaamul Junaydi imaamul Junaydi moomu nag ci ngir ci ci ci ci a aimatu tasawuf fii nga xam ne dañoo xotti am ngiir la bokk lii senegal géppit ci ngirum imaamul Junayd la ñu nekk tarixa yi fi nekk yéppit ñoo bokk nekkandoo ci ngirum imaamul Junayd lenn lu ngeen ci gis mu bees rek ci gone yi la beese waaye boo demee ci bu ma nee gone yi nag waxuma waxuma ñun ñii euh, ndax ñun ñun juddooguñu te ñu njëkk ña laa nekk ci gone yi la beese mooy ginnaaw bi Seex Ahmad Tijaan yi jóge Cheikh Omar Fouti jóge fi maam Abdoulaye Niass jóge fi ak maam Serigne Touba ak maam Seydi Aji Malik ñooñu laa wax yeneen yi bees yi nga xam ne day euh, loxo day dem gémmeñ yépp dañ ko fee fent waaye booba ñoom bañ fi nekkee fii ci sa réew mi loolu nekk fi woon loolu laa jublu ci ma ne lépp lu ngeen fi gis mu yees te jaaxal leen ci gone yi la waaye seen bàyyi ya fi njëkkoon ñoom indi wu ñu woon lu demee noona kon loolu moo di layu ñi nga xam ne ñoo woote tasawuf la wax mooy lépp lu ngeen dégg ñu wax ko waxal nu ko te dëppoowut ak alxuraan ak sunna waxunu ko loolu moom moo wér léegi nag yonent bi li ko may sens moom addisam dafa am daif ak munqati ak mawdu yànke yi nag seen dongo yi dañuy bind rek di wax diw nee na diw nee na te kenn kuy gëstu ndax lii ñu wax diw ko waxam déet amut moo tax lenn lu nekk lu ñu yëkkati rek tegal leen ko te fekk du jógewu ci ñoom kon cëstulaayu tasawuf moo di ihsaan te ihsaan wàcc na ci addis léegi nag eh, tasawuf ci boppam laaj bi nga xam ne moom la ci sëriñ bi tegoon defe naa ne mokkal naa laaj bi mën na ma continuer laaj bi nga xam ne moom la ci sëriñ bi tegoon gannaaw ba mu laajee laaj boobu ba noppi daf caa teg ne diggante tarixa eh, maanaam diggante shariatul mun xaqiqatul eh, munawara ak shariatul mutahara loolu la ma laajoon ne di ma laaj ne diggante xaqiqatul munawara ak shariatul mutahara naka la demee bu ma fàttewul laaj bi noonu la laaj bi deme woon ca ba mu ko dee laaj xaqiiqa nag ak sharia ak tariixa li ci li ci réerloo doom aadama yi dañoo yaakaar ne lenn lu ci nekk dafa doon diine ju bees joo xam ne nit ki eh, da ko indi gannaaw yonent bi waaye xaqiiqa ak tariixa ak sharia ñi nga xam ne noonu la ko sufiyanke yi mag yi jàngale dañoo wax ne al amalu inda ahlil fanni ala salasati aqsaamin ñi nga xam ne ñoom ñooy ay spécialiste ci wàllu jaamu yàlla te ñu leen di wax a sufiyanke ñoom dañoo xaaj jëf yi ci ñetti xaaj amalu shariati ak amalu tariqati ak amalul xaqiqati jëfi sharia ak jëfi tariqa ak jëfi xaqiqa loolu moy li nga xamne mom la mag ñi wax legi nak euh, bo deme ci suratul jinni famuy waxe inna ne inna samina qur'anan ajaban ya'di ila rusdi fa amanna bihi fa amanna bi joje euh, tek da ko wat ci kanam ne wa an law istaqamu ala tariqati te tariqati joja imani jinne ya jitu ya, yam njëkk wax mom la amna sax ñu koy netale tariqa aw yor la wo xamni ne ci ay mbolam di wax tekki wu ko fofu ala ala tariqati ji mooy alal imaan yi léegi nag mag ñi firi nañ ko ne jëf yëpp dañ koo xaaj mu nekk ñetti xaaj amalu shariati amalu tariqati amalul aqiqati li tax du duma du firi baat yi yi ci topp daf koy firi mu ne nag amalu shariati mooy amalul islaami mooy amalul islaami te mooy am mooy jëfil islam te moo di ponk islaam yi juróom xam ngeen ko ma ngi ca addis ba mune amalu mune nak amalu tariqati moy amalul imani, te amalul imani, xam ngeen ko ndax yonent bi jangal nako ci juroom benni ponk ba mu tek ci nak ne ak amalul ihsani kon ihsan, moy haqiqa iman moy tariqa islam moy sharia mbolo mo gis nak dañu am seeni terme yu ñuy waxe yo xam ñom dong ñoo deggo ci ñoo ci deggo leg nak tariqa yi li ñuy wax nit ñi di ci waranteeg ñoom dañ leen koo war a laaj lu muy tekki ndax fi nekk nii boo waxee ab naan tariqa amut waaw du laaj sufiyanke bi ba xam tariqa lu mu ci jublu tariqa moom sufiyanke bi moom ci jublu iman sharia mi ngi ci jublu islam xaqiqa mi ci jublu ihsan kon kay bala nga ko weddi ne ko aqiqa amut da nga koy laaj waaw aqiqa mooy lan mu wax la moom aqiqa lu mu ci jublu li tax ihsan mooy aqiqa ñu tuddee ko ko ñoom boo doon jaamu yàlla ba géej te te ihsaan amul du baax ndax ne an taabudallah ka annaka taraahu in lam takun taraahu fa innahu yaraka te loolu mooy ihsaan fekk éggoo foofa la ngay jaamu du baax kon nag gaa yi ne ginnaaw nag fii ngay egsi léegi door a mën a am jaamu yàlla gu baax kon lii nag mooy xaqiqatul amal ma moo tax moo tax ñu tudde ko aqiqa loolu kese la waaye du leneen ba léegi am na ñeneen ñu firi ñetti baat yooyu nga xam ne moo di sharia ak tariqa ak xaqiqa te firee ko islaam ak imaan ak ihsaan waaye nag nañ ko firee mook loolu benn la ndax ñoom dañoo wax ne amalul ibadati mooy sharia amalul ubudiyati moo di imaan amalul abuda moo di ihsaan abuuda nag ci baatu naar moo di alxuriya xam nga nit ki su demee ba taxaw di julli mbaa muy jaamu yàlla mbaa muy jaamu yàlla ci xeeti jaamu yàlla gu mën a doon raaf lépp fàtte ñëpp jox ñëpp ginnaaw di kenn ku ne jot di fab yàlla teg ci kenn mam gëmal boppam ne gisuma yàlla ki samay bët waaye yàllaa ngi lii di ma gis loola moo tax ñu tudde ko amadul abudati xuriya googu li muy tekki mooy tàqalu ñëpp ak jublu ci kenn ki nga xam ne ci ñëpp war a moo tax al abudatu mooy al xuriya dëggan dëggan dëggan taan loolu lay tekki ci yoon am na ñoo xam ne dañoo ko dañ koy tuddee amalu ahlil bidaaya wa amalu al wasat wa amalu ahli niaya ñu wax ni ki nga xamne ne mi ngi ci sharia eh, ci arkanul islam nek ci sharia koku moy ahlul bidaya ndax moy dugal nit ci l'islam amalu al wasat ñu ne mooy ki nga xamne mo nek ci liman eh, ndax li ci martabatul iman moy maqamul iman ndax koku ma nga ci digg ba ñu ne amalu ahli niaya nak moy ka egg ci ihsan nga xamne mom eh, fanauna fanaa una dara lepp eh, eh, de sa kenn waaw man ashe yonent bi neena kep ku yal yonent bi neena yalla neena ci hadithul kursi jep jef ju nit di def de di mako defal bole ma ca kenen kon bana ko koka kon bala balanga bala defal yalla da ngay jeex ci lepp des ak mom kep lolou kat moy fanaw waye du ndof go xamne nit ci da koy dof di wax lu ken xamut bu fa génnee eh, bu fa jógee delu def nek ci liko neex ñu wax kon waaye man arif bi laa laa xam naa la xew way xewut won bu njëkk léegi nak ñu ne ashariatu an taabudahu wa tariqatu an taqsidahu bil ibadati wal aqiqatu an tashadahu fil ibadati mu jar tak manam maanaam sharia mooy nga jaamu ko te munu ko jaamu lu dil ci ponkam yi juroom tariqa moy Moy iman moy nga djublu ko ca jaamu ga nga jaamu ko ngir motax nga diko jaamu te kenn jaamu lo gemut ak nekkam mune ne nak moy nga gis ko ca bir jaamu ga leg nak gis yalla ngok gis yalla gi nit ñi di wax tasaw eh, tasaw tasaw yu mag ya ñom diko wax dafa bokk teg ñu ñeme yalla ñi ne seen ñaari beuti bop yi dañ ci gis yalla fi ci adina ñoo ñom dañ wax lu leen neex waye gis yalla ci biru jaam moy eh, eh, boo ko mooy nastainu iyyaka kena ka kak gimo moy iman ci dikk na ci trois fois maanaam kena budu moy sharia abam jeh tak wa kena sta'inu fil ibadati nit ñi dañu yaakar ne way kena sta'inu ci ci buma ma ma am dépense la wala way kena sta'inu ma mucc ci samay non la wala wa yaaka ma am xaalis la du loolu wa kena budu moy yow yalla yow kep kep la jaamu wa kena sta'inu te ci yow la dimbandiko ci bir jaamu gi kon nak dañu wax ne asyariatu an tabudahu al tariqatu an taqsidahu bil ibadati wal aqiqatu an tashadahu waaw serigne cheikh xamna deug la yaa ngi ñëw ci benen laaj bi ma la jox inshallah allah dafa mel buma ma li nga wax rek amna solo moy jëmmi kalimatu tasawuf nga ni bu nekkul ci alquran it seeni jëf ak seeni delluwaay yépp yépp alquran la ndax nga joxe misal ci alayhi salaam ba mu fi nekkee booba amuñu ay tafasir tafsirul quran ak yooyu amul booba nas bi rek mi ngi fi waaye bi mu fi jógee nag ba euh, mulkan adura bi ngay wax mooy nguur guy màtte tàmbalee am intérêt yi ñëw politique dugg aha léegi nag euh, ñi nga xam ni yàlla rek moo leen yitteel di wut ay solution nag di beru ñi nga xam ne àddunaa leen yitteel kon fokk ay xalaat yu bees juddu ñi yàlla yi teel ñuy bëgg a delluwaat seen bopp ca cosaan ca cosaanu lislaam loolu nag dem nag ba ak si jur nag mag ñi nga tudd nga xam ne jàngal lañ ne lii mooy tasawuf moo xam abu yas al bustami la wala abu junaydi moom mi nga xam ni wax na ni bala ñoo topp nit fokk mu doon ku xam alquran ak xadis bu ko xamul deesu ko topp yoon wu jëmul ci yonente bi kenn du ko topp ak yu bari loolu la kon day tegtale ni ñi nga xam ni ñoo ji gën a siiw ci ñi jëkk a euh, yeesal ngir mii di man manhaju tasawuf ñoom li ñu wax ak li ñu bind ak li ñu jàngale lu leer la kon topp sabakan nag léeg-léeg moom mu am wax nga ci cat li nga nii bu jamono ñëwee nag ba daanaka kuy waxte doo indi benn dalil benn tegtal kenn du la diglu loolu mooy dëgg mbokk yi mooy dëgg ndax xalqa bi daal daa doon jotaay boo xam ne incha allah day indi li nga xam ne dañ koo bëgg a dàq te mbokk ci waaye day dindi li taalibe bëgg a saxal ci tasawuf te bokk ci incha allahu kon yaa ngi ciy laajum ñaareel bi ci leeral diggante sariatu al munawara wala boog sariatul mutaharatu wala aqiqatul munawara bismillah waaw jërëjëf sëñ Habib euh, euh, de da euh, sufiyanke yu mag yi dañoo wax ne alchariatu an taabudahu wa tariqatu an taqsidahu yaani bil ibadati wala xaqiqatu an tashadahu waaye ñoom seeni wax dañ koy wax firi ko di ko firiwaat di ko ba mu leer la naañ ñi ñoom fukki yoon mën nañoo wax seeni wax di ko firi di continuer mu ne aw alchariatu li islaahi sawairi wa tariqatu li islaahi damairi wala xaqiqatu li islaahi sarairi mu ne sharia mooy li jagal biti gi moy bul bul sàcc bul fen bul jow bul nan sangara bala ga julli jappal bo julli jote demal jàkk loolu say jëmm moo koy def mu ne loolu li islaa zawairi ngir nga nga nga nga nga rafetal eh, li nga xamne moy mooy jëmi biti wa tariqatu li islaa dhamairi tariqa nak moy iman te moom da dañ ko def ngir nga nga nga nga dem ci xol ba daa di koy defar al aqiqatu nak li islaa sara'iri xaqiqa nag mooy nga defar la nga xam ne mooy la nëbbatu la nëbbatu nag waxoon naa démb ne yasalunaka ani ruu'i qulil ruu'u min amri rabbi kon bu saf bi ne islaau sarairi ni ngi ci jublu defar ruuga kon sufiyanke yi dañoo jàpp dañoo jàpp diine def ko jëmm ne ko sharia yow yaay jëmm ji yaay yàpp wi yow nag mooy moo moo moo di al islam mun ñu ne ko iman nag yow yaadi di xol bi ñu tuddee ko tariqa ñi daal di ne ko nag yow yow nag ihsaan yaay ruugi ñu tuddee ko haqiqa baat yooyu loolu dong lay tekki léegi nag islaahu zawairi sharia moo koy def waaye ab naafiq mën na koo def islaahu damairi imaan moo koy def waaye ab naafiq munu koo def man naa ànd ak nit ñi ci jàkka ji julli te su noppi du am julli waaye nag islaahu sarairi ji nga xam ne nag moo tax ñëpp moom la wut nag foofu nag la mbir ma nekk ndax fekk gisoo yàlla ci sa biir jaamu gi du sotti ndax eh, eh, eh, ka an naka mel ni ki yow la wax tara yaa ngi koy gis gisoo ko naam waaye gi gina nit ki boo taxawoon jàkkaarloog moom tey silmaxa mu wóor la ne yaa ngi jàkkaarloog moom waaye yow nag silmaxa nga yaa ngi koy gis ndax li tax yang koy gis moy gisoko ko yow xam nga ne mom lay gis leg nak non la koy nit bi waxe munu gis yalla ak sa ñaari beut waye soko day jaamu yalla na la wóor ne mom lay gis bu la wóor ne mi lay gis nak kon danaka ku lay gis jàkkaarloog yow te gisoko te jox la ab gis bu ko neexoon dindi sa sa ñak gis nga dal di koy gis te fek nak gisoko ko yang koy gis lolu moy eh, moy anta abdullah ka annaka tara'u ba wax ci jeexee legi nak mu dik ci lan moy maye sharia lan moy maye tariqa lan moy maye maye Nenek nag islaul jawaari i bi salasati umurin li nga xamne moy defar jëmm yi ñetti mbir la tawbatu taqwa istiqama. duma duggon ci tawba dana xóot duma duggon ci taqwa dana xóot suma duggon ci istiqama dana xóot waya qul amantu billahi sumastaqim ne jangal quran jang nañ ko tawbatu taqwa istiqama. lolu mom ngay mën a booleeg sa sharia ngay doora a continuer mu ne nag islaahul xuluub bi nag te moo di te moo di iman bi salaasati umuur yi moom tamit ñetti yëf la ixlaas sidqu tumaaniina ixlaas mooy sellal sidqu mooy dëggal tumaaniina mooy dal mooy dal xam ngeen ni dal googu kay yàlla dafa xaaj bakkan yi def ko juróom-ñaari bakkan ne ko bii yow yaay nafsul amaara bi suu kee yow yaay nafsul lawaama kee yaay nafsul mutmainna al tumaninatu al nafsul mutmainna kon kon defe naa ne leer na leen Euh, kon ikhlas, ak sidqu ak tumanina muy mudi mudi mudi mudi mudi wetal yalla bagn ko bokale ak deugal ak dal euh, mom moy indi mom mom nga meuna am dora am iman legi neng mu dem ci lay yar ruuga mune wa isla sarairi nak bi salasati umurin li yarugru itam te moy secret bobu nga xamne min amri rabbi la bokku yettimir la al muraqabatu wal mushaadatu wal ma'rifatu muraqabatu moy fuglu fuglu nak limi tek ci wolof moy ko xamne bu ne tël nga ne mi ngi fi du la bet waaw seigne tubaab dafa wax ne kul kulay set ci te du la tàggu te du la wax waxtu wu mi ñew li la war moy sa yoo dikke sa yu dikke fek la ca la ko neex na waxit ne eh, ker bañat de bul fa yellu kon fuglu moy muraqaba te modi modi lolu eh, lo manam defar nak secret te defar ru muraqabatu mokay def ak mushahada mushahada nak modi jakarlok sa borom ci sa xol waxuma ci say jë ci sa ci say bët foo toll teewal sa borom ci sa biir xol loolu moo di mushaahada maarifa nag du ma leen ko wax eh, bi ci bitti bi laay wax maas maarifa bi may wax ci bitti mooy kenn ku nekk xam nga sa borom bo déparé ci ba nga du dara ba ba ngay dara ba ba nga juddoo ci day ba nga tol ni ba raw dee ñu suli la nga nga ay jekki jakkol ci kisa kanam borom lolu bo ci xamul sa borom nak lu diwut jëm jo xam ne la mel melé li la sol bobu mom yaangi bëgg a dugg ci yo xam bokul ci l'islam bokul ci tasawuf légui nak eh, bu la nexé tam nga né islau zawairi ittinabu nawai mo koy mayé ak imtisalul awamiri mo wacc ci tari ci sari ji gën a nga xam ne dañuy firi ñoom di firiwaat nee na islaau zawairi ijtinaabu nawaayi wamtisaalul awamiri moo koy may léegi mu teg ci ne islaau damairi te moo di defar sab xol li koy mayee mooy taxliya min arrazaili wa taxliya bi anwail fadaili taxliya mooy seleng lu ci lépp loo xam ne ay ñaawteef yu yàllay tere la taxliya moo di gànjaroo lépp loo xam ne lu rafet lu yàllay digle la kon bàyyi tere def ay ndigal loolu moo mooy maye islaahu damairi léegi islaahu sarairi ñëw mu ne ko islaahu sarairi nag mu ne wéy wa al arwaahu kon léegi xam nga sirru jañ doon wax ruu lañ ca jublu woon baslu a bin kis baslu a wan kisaariha atta azzaba wa tartada bil adabi wa tawaddu'i wa usnul khulqi neena li nga xamne mom moy may maye eh, eh, defar sa gru moy ko sa borom toroxal ko ci ci toroxal ko ci ci ci ak boromam yar ko ba nga xamne bi dana tagatu ba am teggin toroxlu boole ko am jikko ju rafet ci sa kenen borom lolou mo di yar sa gru sëriñ cheikh eh, wax deug deug yalla li nga indi euh doyna doyna japp ci faramfanteel nu alchariatu wal xaqiqatu léegi indi nga ñetti baat yu am solo yooyu nga xam ni mooy alchariatu wal xaqiqatu wal tariqatu kon noo ngi dégg ni kon al xaqiqatu mooy amalul ixsaan alchariatu mooy amalul islaam waaye al tariqatu mooy amalul imaan kon ñetti yooyu ndekete mooy al imaanu wal islaam wal ihsaan waaw wax yàlla daal euh, kon dañuy dem ci tontu bi nga xam ne moom moo ci topp bu fekkee da nopp ci bii incha allah te baneen bi nga xam ni yaakaar naa xañ na moom la ñuy mujj ndax timis bi léegi day bëgg a jot mooy arkaanu tasawuf walla boog li ñuy wax usulu tasawuf te ñaar yi dañooy jege waaye benn bu ci nekk nga idul nit ci ay farampanc insha allah waaw sëriñ abib usul ak arkan dañoo xaw a dend ba moo tax buñ ko dee wax day mel ni benn waaye usul ak arkan ci tasawuf dafa mel ni ki mag ñi niñ ko jàngalee ñoom defuñu ko muy benn ndax arkan moo di ay kenu yu ñuy tabaxi ab néeg waaw yooyu moom la Sëriñ Tuubaa wax ne arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatun bi ayu assasu bun yaanul wilayaati sumtun wajuun tawilun baxda u saarun wa oslatun an suyuuxin bil ishaaraati mu ne néegub wilaaya daal boo ko dee tabax yaa ngi koy tabax ci ñenti kanu ñu ne ko ñeenti kanu yooyu yan la mu ne sumtun wajuun tawilun noppi gu ànd xif bu yàgg baada arun nga boole ko yeewu di jaamu sa borom ci guddi wa waslatu nangu wiit an suyuxin bil isharati te nga di ko te sa wiit googe nga ànd ak sëriñ bu la cay womat loolu moo di arkaanu ngay wax amma usul yi nag bari na ay façon waaye yi ci gën a siiw moo di juróom yi nga xam ne moom naqshabandi yu ne yi moom lañu wax te yi mooy ñi nga xam ne ñoo jokko ci abu bakrin siddiq ndax sidna abu bakrin siddiq amna na bu jaare ci mom moy tarixatu naqshabandiya ñom dañ ni juroomi usul rek ñoo am benn bi moy taqwa moy aslu bu njëkk bi fi sara fi siri wal alaniya teet ak ragal ci dig ci secret ak ci feñ mu ne taqwa gogu nak ci ci ci te moy ragal yalla ak teet ci feñ ak nebu wara ak istiqama mo koy may te wara moo di sàmm sa bopp istiqaama mooy jub ñu ne ñoom lu ponku tasawuf bi nee na ittibaa sunna la topp sunna moom la ci jëf ak ci wax ñu wëlbati ko nag ne lii tax nit ki mën a topp sunna ci jëf ak ci wax moo di wa usnul xuluq wattu li nga xam ne moo di jëfi yonent bi nga di ko jaare fa nga xam ne fa la ko daan jaar boole ko rafet jikko mooy maye topp sunna ñu ne ñetteel bi mooy al iraadu mooy dëdd àddina dëddu doom aadama yi ci ñu jublu la ak ñu bañ laa jublu jublu doom aadama yi daal mënta ànd ak jaamu yàlla gu sell ci tasawuf kon nag da ngay dëddu doom aadama yi moo xam ñu jublu la di dalaf dalafi moo xam ñu bañ laa jublu bañ laa faale nee na loolu itam nag muñ ak ak ak moo ko mën a maye soo bëggee woon gannaaw nit ñi yemale ñu topp la ak ñu bañ laa topp loolu moom muñ ak wàkkirlu moo koy maye waaye sufi fi yanki bu yaakaar ne damay jël di wu di guddal kurus ngir dajale mbooloo moo xam ne ëllëg bu ma génn ñu topp ci man coolu ne comboy kooka <clears throat> rëbbëkkatab addina waaye du sufi fi yankee ñeenteelu ponk bi mooy rida te rida moo di yaa yaa yuta nafsul wadukulif irjii ila rabbiki radiyatan mardiyatan wa dukhuli wa dukhuli fi ibadi wadukulif fa jannati kon rida moo di gërëmloo sa boroom ci lépp lum def ci mu neex ak mu naqari la te nee nañu loolu itam li koy mayee ci yàlla moo di alxanaa alqanaatu wa tafwidu xanaa mooy doylu tafwidu mooy wékk si mbir ci yàlla boo ko defee di nga mën a am rida soo doyluwul doo doyloo yàlla doo gërëm loo yàlla soo wàkkirul soo wékkul say mbir ci yàlla itam doo doo doo doo mën a gërëm gërëmloo dogalab yàlla ñu ne juróomeel yi nag moo di dellu ci yàlla ci biir ak bitti arrujuwu ila llahi fi sirri wa fi sarra'i wa dharra'i dellu ci yàlla soo amee lu la neex nga sant ko yàlla dellu ci mom delu ci yàlla boo amee lu naqari nga muñ te ànd lam def loolu moo di arrujuwu ila llahi ñoom dañ ne yooyu moo di ponki tasawuf kon taqwallahi ragal yàlla itiba'u sunnati topp sunna al i'radu wan ginna wa anil jailin wa anil wa bu dem leen ci alxuraan yéen mokkal ngeen araadu daal foofa la tëgg foofa lañ ko yàlla foofa foofa la ko suufiyanke ya tëgg mooy nga won gannaaw lépp jublu yàlla suñ boroom la ca topp mooy nga gërëmloo yàlla lépp lu mu def la ca topp mooy nga dellu ci yàlla ci bu bégte amee nga dellu ci yàlla bu lor amee loolu moo di usulu tasawuf yi nga xam ne moo gën a wér eh, bu ma delsee ma wax li ko sëñ Tuubaa waxee ak ak ak ni ko eh, eh, imam Xasali yi waxee ak ni ko sanama Tijaan yi waxee léegi nag soo demee ci eh, boo demee ci eh, ndénkaaneel Sëriñ Pakala eh, Sëriñ Tuubaa wax na fa ne إن كنت سائلا عن التصوف لكي تعد من سوي تعرفي فللتصوف أصول تعرف تسعة أشياء لدى من يعرف أولها تلاسم الكتاب وسنة المختار الصوابي لم كو واخ داكو ني بو فكي ني داك آه، آه، تصوف تصوف اي بونكم جروم نينت لا جروم نينت يوي نا <coughs> مبلم بروم خام خامي ñi ne ko waaw juróom-ñeenti yooyu ban ak ban la mu ne ba ca njëkk mooy lu santaane nga def ko lu mu tere nga bàyyi ko defe naa ne loolu moom la salafi yonke yi tamit di wote ñi ne ko ak lan mu ne wa sunnatil muxtaari si sawa bi nga taqoog sunnas muhammad sallallahu wasallam lu mu santaane nga def ko lu mu tere nga bàyyi ko loolu tamit moo di yoonu te salaf yanke ya wa tarkul ahwaa bàyyi ay bànneex wa tarkul bida i bàyyi ay bidaa yaakaar naa ne bidaa moom ku koy bàyyi lu ku nekk war ngaa mën a diggoog salaf yoon yi ndax loolu kasaaka tabjilu shuyuuxil xushaa yi léegi nag nga màggal kilifa yu mag yi nga xam ne dañoo ragal yàlla foofu nag la coow li ne waaw te nag màggal nit ki munta wees nga naan ko rabbana ixfir lana wali ixwanina alladina sabaquuna bil imani wala tajal fi qulubina xana lilladina amanu rabbana innaka anta loolu won na la ne ña la fi jiitu woon te gëm yàlla da nga leen war a yàlla waaye leen gën ci teeka ŋàññaka xas wër te mën a nekk yeneen bi ne man a yàlla mu yenent bi ne yàlla nee na man aada li waliyan faqad asantu bil harb ku noonoog sama wàlliwu man déclaré naa la ab guerre lii jaan laag lii aw sagar la nag ci lëndëm ma wàcc la fa te dem moo yow ginnaaw wér na la ne yàlla am na te wàlliwu yàlla yaa ci biir jaamam ñi te yenent bi sallallahu alayhi wasallam na lépp loo bëgg a xam ci sa boroom na nga ko déglu ci say moroom ndax li nekk fi yow ca sa boroom say moroom ñoo koy wax bu nit ñi di jiñ nit wilaya na nga japp ci sa njàmbur ci mom te bu ko songu ndax wul man nga ka songu mu melni man man nga ka songu fekk deug la kon magal cheikh yu mag yi daf ñoo war la ca top moy nga gisal nit ñi ay ngant logis gis nit def ko rek nga utal ko ngant te bañ ko bañ ko tas ci kek ni nga xamne gunul bëggul ko ko def la ca top itam moy nga def wird mu di mu saxal ko dak te jëmi yalla tax wird nga saxal ko dak te jëmi yalla tax wird nak baatu wird nak ci boppam ci la coow li nekk ndax li tax ci baatu wird la coow li nekk nit day mar di naan ndox ruu day mar di naan leer te leer gi ruu di dunde moo di yàlla leerug yàlla te leerug yàlla ci turam ya la ko def kon tudd yàlla lu bari day tax sa ndox sa sa di naan leer loolu moo tax mag ñi tuddee ko euh, wird ñu tuddee ko noonu waaye mooy uskuru euh, la zikran kasiran rek wasabbihu bukratan wa asilan tudd leen yàlla lu bari te di ko sàbbal suba ngoon ponk yi nga xam ne tasawuf amna ko ndax bo duggé ci yeneen yi man na gudd légui nak ma dem ci li nga xamné modi maqamati comme ni ma ko laajee la al islam qabla al iman mo am ak al iman qabla al islam té ñaar yoy yépp ñi ngi ci biir qur'an al iman qabla al islam saaba yi ñoko waxal seen bop abdullah ibnu abbas mo wax ne kon euh, sama sëriñ timis ji jot na waxtu lañu waroon a am te amuñu ko waaye jox naa la audio yi dugal ko yépp danañ gis waxtaan wi dama tëddee ci audio ba jeex euh, li may leeral rek moo di euh, al imaanu xabla al islaam ak al islaamu xabla al imaan saaba yi ñoo waxal seen bopp ne taallam na al imaan xabla an taallam na al quraan yàlla nag moo wax ne qaalatil arabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna walamma yadxilil imaan fi qulubikum kon al islaamu xabla al iman am nañu ko def al al imaanu xabla islaam am nañu ko def ñaari baat yooyu nag la suufiyanke yi jël def ko eh, majsuubu saalik ak saalikul majsuub ñoom majsuubu saalik mooy al imaanu xabla islaam saalikul majsuub nag mooy al islaamu xabla al ñaar yooyu yépp dafa am eh, bu fekkonte ni yàlla may nañu uh, yaatu waxtu ñu mënoon a am une heure de temps biñ ko yéene woon a defee kon danañ leeral li ñu waroon a leeral yépp ndax maqamat yi jun manam manam manam manam darajat darajat darajat yi nga xamne moy dara darajatul maqamat junni la te munuñu ko wax ci wenn waxtu waye nak ñoo ngi jégglu képp ko xamne fason nañu yéné jottante ak yow ba liñu wara wax jeex di sant tam serigne abib ndax timis ji dafa excité man ci jakka ja la la la nek fa fa la wara jëm ni legi waye buñu julé timis ba nopi buñu dé jall nañ ko jallalé buñ dul jall ñu sét ko benen bis sëriñ abdou ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm wasalaamaaleykum rahmatullahi taala barakatuhu léegi nag bala maa dugg ci biir dinaa wax waxi mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te doon ay suufiyanke tasawuf nag du loo xam fi mu da nga nit ki da ciy débat di laaj ay dala il ñaareel ba man itam nit laa koo xam ne ci sunna rek laay wéy yonent bi dafa wax ne ma dalla qawmun ba'dahu dan kaanu fi illa atul jadal ba tax na jidaal moom bu weesoo jidaadul xasan cheikh cheikh bokkatul ca loola si amar it nee na dëgg dañuy wax pour mu feeñ su su feeñee nag nga continuer ca nag léegi loolu xuloo la wala xasante waaye dëgg moom bu feeñee ci yow baax na bu feeñee ci keneen baax na sufiyanke yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon te nga xam ne ñoom ñoo tëral yoonu sufiyanke ci biir euh, àddina ci doxalin wi nga xam ne mooy doxalinu suhaadu njëkk yi mooy du dëddu àddina ñoom dafa am seeni kaddu yu ñu wax wone ne ñoom loola moo di seenu yoon li jëmbe nag sufiyanke yi nag mooy yonent bi moom dafa wax dem nit ñi di ko yokkal ba yàgg ñu ne nañ lijjanti wax yonent bi ndax am na luñ koy waxal te waxu ko daa di seet la nga xam ne moom lañ koy waxal te waxu ko génn ko caw génn la wér teg fële sufiyanke yi nag ay nit leen bëggoon des fi seen ginnaaw di wax lu leen yàlla yore di bind ci ñoom te lépp lu adressé ne ñoo ko wax rek ñu ne ko wax te fekk boo demee ba ca biir di nga xam ne waxi waaja ba mu déparé di wax waroon na lool ak li nga xam ne ay dongom waxal nañ ko gannaaw bi bokk na ci ki nga xam ne moo gën a siiw ci yoonu tasawuf fii ci réew mi di réewum Sénégal te dafa am fukki ngir ak ñaar yoo xam ne ñoo di ngir yi tasawuf waaye mënuma leen a wax na xëjul ci waxtaan wi waaye ngirum imaamul Junaydi daal ci la Sénégal nekk ngirum imaam Junaydi nag moo di jaamu yàlla gu ànd ak sago te ak ndof bokku ca bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi yamunnu bi sawaabixi al alaa'i wa yatafaddalu bi jasili lfadli